أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi suñu mbokki journaliste yi ñu ngi leen di dalal ci mosquée de la divinité di masjidu rabbani di leen ñaanal yàlla dafa leen fi dalu jàmm li waral jotaay bi nag mooy waxtaan ak yéen nga xamante ne yéen la yàlla dogal may leen kàttan ngeen mën a wasaare tas ay xibaar ci saa yoo xamante ne ni yegsi na ci yéen xibaar yi nag mooy baaxe leen baaxe mbokki Sénégal mbokki Afrique ak mbokki àdduna bi yépp nga xamee ne tey fi tey ci jamono àdduna lu fi yëngatu rek ak gox bu mu mën a yëngatoo ñépp a jotandoo ko ngir xam-xamu xarale yi nga xamante ne ni daje na ba tax na ci noonu li waral jotaay bi mooy yàlla subhaanahu wa taala gannaaw ba mu giiñee ci wàllu wal asri nga xame ne mooy tekki tàkkusaan tàkkusaanu jamono di mujjug jamono ne doom aadama yépp ñu ngi ci perte jamono boobu nag li tax ñépp nekk ci perte mooy ne nit ñi seen itte yépp mooy àdduna koomu àdduna bànneexu ak fo fàtte nag ki nga xamante ne mooy seen borom bi nga xamee ne moo leen bind te la tax mu bind leen mooy ñu jaamu ko kon bàyyi nañu ginnaaw jaamu yàlla fitna tàbbi na seen kaw njàqare ak tiit yépp tegu na seen kaw bu loolu yegsee nag suñu borom tabaraka pour xittali ñooñ jamono dana yónnee ndawam loo xamante ne nii mooy dikk wax ak jaami yàlla yi ci noonu ba nga xamee ne coobarewu na moom suñu boroom ci wàcce ka nga xamee ne moom la yéege woon ci asamaawu ñaareel waajal na nag jaam bu ñu wax Mouhamed góor gi seeni géey yéege ko ci asamaawu ñaareel done la ko leeru yonti yàlla Insa ibnu Maryam wàccee ko ci kaw suuf ci atum 1965 ba muy wàcc kàdduk aouzu billahi min asheytaani rajim la wàcc waale ci kaw suuf mooy xeej wi nga xamante ne moom la ko suñ boroom jox ngir mu xeexe ko seytaane ba seytaane du man ci moom dara waaye bi muy wàcc ndawal yàlla li mu àndal di jibril alayhi salaam mi ngi ko laf ci wetu ndejooram te di ko dégtal kàddu yi di wax naan laa maljaa wala manja min allahi ila ilayhi làquwaay amul rawukaay amul fenn fu dul ci yàlla kon nag kàddu yooyu nga xamante ne bi mu yegsee jotal na ko jaami yàlla yi ne leen jamono bii ñu nekk de di mujjug jamono kenn amul fooy làqo kenn amul fooy rawe lu dul nga wëlbatu ko delluwaat ci sa borom subhanahu wa taala ci noonu waajtaay wi ko suñu boroom waajale nag toog na lëlu wéetal boroomam fukki at ak ñeent tàmbale ko 1963 ba 1977 mu jot ndigalu boroomam war a génn wooteel ko woote bi nag jëm ci jaamu yàlla yi le 6 mars 1977 la wax ne suñu boroom subhaanahu wa jox na ma mission wu ma woo jaamam yi si njub ragal yàlla ak sellal baatu njub boobu nee na suñu borom officiel na ko ci asamaaw bind ko ko ci mbind mu ñuul ci suufu dellu xuddee bi am tomb bu xonq cuy kon nag njub gaangoog woo na ci jaami yàlla yépp ku bëgg am jàmm nag ci biir jamono di aqru zaman foog nga tegu si njub mu wax ne suma borom ne naa leen woo ci ragal yàlla ginnaaw bi ma ko bindale ci kaw asamaaw mbindum urus moo xamante ne mbind mu xonq coy la kon nag ragal yàlla ngoog ku bëgg mucc nanga tegu ci ragal yàlla bindal na ma ci baatu baatu aslaha di sellal ci mbind mu weex ne naa ci woo jaamam yépp ñu tënku ci ñetti baat yi njub ragal yàlla ak sellal lii nag mooy risaala bi nga xamee ne suñu borom jox na ko ndaw ndawal aqiru zamaan te ndawal aqiru zamaan mooy ki ñu doon séentu ci mujjug jamono mu wax ne man mii lañ doon xaar ci mujjug jamono yegg si naa indil naa leen kàddug suñu borom tabaraka wa kon jotaay mu daan jotaayoo ndoorteelu at mu jot ci place bu ñuy wax Baye ci Wakaam bokk na ci ay kàddoom muy wax ak jaami yàlla yi te lépp sukkandiku ci alxuraanul karim ndax alxuraan la ko suñu borom tabaraka wa taala donale ne ko tamit royal ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ay waxam ci ñaar ñi rekk la alxuraanul karim ak xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu la suñu borom tabaraka wa taala donale ci waxam ngir doon na alxuraan léeg-léeg bu daan yore kayit di wax dana dellu tollu jamono boo xamee ne suñu borom tabaraka wa ci cadre aarif billaay bi mu doon suñu borom di ko bindal aaya alxuraan yi muy traversé ci kanamam muy wax ak jaami yàlla yi ngir bañu juum ci lenn kon nag yàlla bu waajalee jaamam waajtaay wa nga xamante ne mooy waajtaayu baatin wax moom ci bi mu waxee moom yebal ko mu woo jaami yàlla yi ci ñu topp suñu borom tabaraka wa foofa nag pour firndeel ko suñu borom tabaraka wa wàcceel ko néegu yàlla bi nga xamante ni tey moom ngeen nekk nii ci peggam muy mosquée de la divinité mosquée de la divinité suñu borom mi ngi ko jox plan yi ci 1971 ci baatin 1973 ñu woo xamal ko ne ko néeg baa ngi wàcc génnal mu génn teen ci asamaaw gis maketu jumaa ji jóge ci kaw asamaaw di wàcc mu topp ko ba jumaa ji cëppeelu fii suñu borom xamal ko ne ko fii laa ko bëgge mu tàmbali liggéey bi ci ndigalu boromam 1992 le 20 mai 1997 mu inauguré néegu yàlla bi jébbal ko suñu borom tabaaraka wa taala jiite na ko jullee ko ànd ak jaami yàlla yi wooteel borom bi tabaaraka wa fanweeri at mission mat ci dunduk doom aadamaam mu bàyyi fi xalifaam bu tedd bi di Mouhamadou Nabi Guèye ak mbooloom union musulmane e culturelle Nabi Allah ñu fas yéene incha allahu taala continuer mission bi nga xamante ne nii moom lañu ñu bàyyeel kon nag jaami yàlla yi lii mooy li nga xamante ne nii moom moo nekkoon woote bi te ba muy tëj waxtaanam mi ngi fàttaliwaat jamono ne assalaam assalaam ala man itaba al huda assalaamu ala man itaba al huda mucc daal mi ngi ci képp koo xamante ne nii topp nga yoonu njub ba mu yeggalee nag mu ne bon chance asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.